Ibrahima Dieng. arbitre baa ngi waxaat ak ñaari xale yi. maa leen wax la règlement bi. saa xalaat nangu ak mu bañ. booy bir ndaysaan ak faru jar ndaysaan nee na leen bëri ngeen ñaari yoon kii def na am na ñaari yoon kii am na avertissement sifflé waat na deuxième round lañ mën a wax booy bir càmmoñ ginnaaw ba faru jar ndi joor ndeysaan combat baa ngi noonu sama combat xarit la Mouhamed Ba Ahmed Boutique sama xarit bi maa ngi koy souhaiter bon anniversaire mbokk di ko ñaan mu dund cent onze ans sans sans ordonnance ni consultation bàyyi gunta ak awa booba Mouhamed Ba xarit ndeysaan li mu nekkee ci koñ bi ñëpp xam nañ ko boo weddee laa jël commando boo weddee laa jël kàbbu boo weddee laa jël Ablaye Lay boo boo weddee laa jël Fallou Ndiaye Ameth li mu nekkee ci réew mi ñëpp xam nañ ko Ameth ñu ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér ndeysaan li ngay def ci lu baax yàlla fay ko waaye combat bi ñu lépp looy def loo xamante ne safaan moo la yàlla suturaal la da ngay xeex bi moo ko ameel su ma ko mu yëpp ma ci yoon ndax li may wax yëpp kenn wax loo ma ko waaye Mouhamed Ba sama xarit la ñaari xale yi jàppante nañ far Farou Diarra ngay door wala Boy Biro ngay door Farou Diarra takk na ko takk na ko fi mu ko yegg sori na fi mu ko yegg sori na Farou Diarra ndànk kenn kenn du ko forcé kenn du ko forcé déedéet xale ak Boy Pire day jee ci lam relance fois day jee ci Boy Pire li mu maye léegi relance moo ci génnee. ah bu doon maa yow lu mag doon ba dee bu dee képp ba ko. Boy Pire bu doon maa yow du ma defaat lool de. ndeysaan comme baba ngi noonu ba day ñaari xale yi jàppante ne. Boy Pire faru jar. saxabal mu bañ. la ilaha illallah. waaye xale yi ñoo mën a bëre. mais nag booy jàpp fenn waaye. a bëre. xale yee mën a bëre. booy pul daa bëgg a jàpp. Arou Diar am na lu muy teg booy pul ci ngeen. xaw ma faru jar xaw ma jar. waaye ndànk de. Ndeysaan. Ndeysaan. Boy Pire Farou Diar. taxabal na ko mu bañ. Ndeysaan Mame yërëm naa ko. coach Rono toog ci banc bee. moo toog ci banc bi. Mame Less moo indi Farou Diar. coach Rono moo indi Boy Pire. waaye ñoom ñaar kenn lekkatul kenn naanatul. xaw ma kañ la ñuy boole ñaari coach yi rek soufflé ci digg géew bi boole leen. naan maam lees moo taxaw ginnaaw. plaqué nañ ko war nañ ko ndobba. doo ci génn doo ci génn faru jar doo ci génn. wala déet faru la ilaha maam lees da ma fayda. ko suróor jàpp na gémmiñ ga. <laughs> waaw lay bëre nañu faru jar li la daw ni bu la dalaatee musiba dal la la illa ñëwal la ilaha illallah jaral koy pir xale yi bëre nañ léegi mel ni ñaari bëri ku na nga sonn faru jar faru jar booy pir ak booy pir booy pir amaana loxo ci ndeem faru jar ak booy pir ari koy nengeñ xañ ko combat bi neex na ñaari xale yi joxe nañ lu ñu man dañ ne nit doit nekk. booy pir faru jar. endurance yaay moom combat bi. booy pir faru jar. faru jar booy pir. ndeysaan booy pir faru jar. faru jar booy pir. booy pir faru jar. booy pir faru jar. ku ne am nga loxo ci ngémb. ndeysaan dégg ngeen te ne ñoom ñaar. man ni faru jar fu mu ne nii. ñaari xale yi ndengeñante nañ booy pir faru jar lim jàpp ne kat am na plaqué na ko jéem naa bañ na mu bañ daal koy wéyale ndeysaan déclenché na ko mbot mu bañ lam du yàgg dafa métti ndeysaan métti supporter métti reporter bu doon maay faru jar damay jékki-jékki rek sax métti si arbitre xaar bu baax sama loxo rek dóor mantoon ci suuf faru jar booy pir bu doon maay moom ni ma jàppee dama koy gën a jege. maa ko prolonge dama koy caxabal caxabal kaa bu biir biti ngay def teg ko ci ginnaaw tànk ba ci poqataanu tànk ba ci ginnaaw ngay kal sa tànk rek forcé ko. ndeysaan su ko defee yuuxu jib fiñ ko foogewul waaye defet dafa baaxut ci mbër moo doon ñaari xale yi ku ci nekk ndeysaan xamoo fan ngay taxawee. kenn xamul fu muy taxawee ndeysaan Bilal nank rek ñaari xale yaa ngi noonu far wu jar booy pir ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu far wu jar booy pir ndeysaan far wu jar booy pir yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na waaye ndeysaan faru jar booy pir caxabal tegal na ko seen daan na ko daan na ko daan jël ba mu benn werante booy pir daan na faru jar booy pir daan na faru jar jël bu amul benn benn benn lamba ngi nii duma la ko daan na ko ndeysaan lamba ngi nii faru jar yaa nga ñibbi wala supporter faru jari yaa nga ñibbi ndeysaan juguñu fi ñu taxaw wala supporter booy piri ñu ngay génn di yuuxu ndeysaan oh defete ngi ku jaar na ma nga toog rek ndeysaan ñoom wax ak ñoom